dañu sant bu baax a baax euh, di gërëm ci tomb bi ni nga xamante ni noonu nga ko jaare rek fi mel euh, damaa waxoon ci bi ñu tàmbali ne fi jamono ji toll ak jéego yi ñu jéggi ci lu ëpp téeméeri at ak fanweer bay jàpp juróom-ñaar ci sos yoonu murit lu mel nii baax na ci ngir mu fàttaliwaat njàngaleem sëriñ bi nga xam ne moo ko fi indi woon te sëriñ bi tënkal ko boppam ne diine lay woote waaye day yeesal xeli nit ñi ak seen xol yi ba ñu mën a jëfandikoo diine man koo topp ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcce woon moo mu wax mooy njàngaleem sëriñ bi day ndigal ko jógee suñu boroom mu ne ko kon wooteel ci njàngaleem lislaam looloo tax sëriñ bi defe ko ci sonn ci lool ak itam bég ci muy lislaam ju joo xam ne dafa woote alquran ak sunna ak li boroom xam-xam yi daje sëriñ bi ngir doon gi mu yóon doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko suñu am waxe tax na dara lay diine bàyyiwu ko lépp luy diine lislaam rek sëriñ bi daf ko boole dund ko jëmmal ko yare ci waaye nag daa seet lu nekk la koy tënk ca wuute yu bare ya la ca gën a jàppandi te ëppal ñu njariñ sëriñ bi loolu la ñu digal ñu topp ko kon kuy woote woo murit da nga xam sëriñ bi fa mu joxañoon jëme la ëpp solo ci wuute yi la ci gën a yomb gën ci dëppoo ak ñun moom la ñu sëñ bi tànnal loolu moo tax sëñ bi tànn ci aqida madhabu ahli sunna wal jamaa tànn aqida ashariya moo tax sëñ bi ci biir ngir yu bari mu tànn ngirum imaamu Malik ci biir ngirum imaamu Malik itam su ci wuute amaate mu tànn li dëppoo ak ñun digal ñi moo tax sëriñ bi ci tasawuf mu tànn ñaar yooyu mu wax muy ashukr wal mujahada boole leen maanaam ci naanuwaayu tasawuf bi yépp da leen a boole nga xam ne foo dem da jàpp ne sëriñ bi côté bi rek la soo ko jaa soo ko seetee ci benn angle bi benn angle bi da nga moom rek la loolu itam euh, dana ci kii lu am mooy sëñ Bachir daf koo wax ci ni sëriñ bi doon dunde xam nga wax na ci a ginna diggante timis ak gee ci mujaahada bi ñaare daana fi jàng daana fi liqa def ñaari rakka yoo xam ne baqara ak ali imran la ci daan def baqara ak ali imran ci diggante timis ak géej te itam noonu la daal bu guddi gi daanaka daa wut nelaw sëñ Bachir nee na nga ko muy nelaw dana jafe léeg-léeg daana sóomu woolu nit kooka bala moo ñëw ay nelaw dafa ko jàpp moom sëriñ nga xam ne day mel lu tiit su déggee nit ki di ñëw dooy dégg mu ne subhaana man laa taaxuduhu sinatun wala nawm ngir rek xam ne doomu aadama la waaye dafa jàpp ne nelaw daf koo wërut euh, sëriñ Xasan Lo mii moom sëñ Modou Lo Issa nee ñu sëñ Omar Fall Mbàkke moom sëñ Mbàkke Kajoor moo ko nettali nee na bis damaa ñëw njaaree nii rek fekk sëriñ bi di julli moom mi ngi xam ne sëñ bi moom lan moo tax tey julli yu ca jàkka ja nee na ma gaaw kabar rek topp ci ginnaaw sëriñ boobu mu ngi ci baqara sëriñ bi di tari di tari di tari te noppi ba mujjukaat bi ca lay doog a rukkoo ba noppee beneen rakkaa bi nee na ci la euh, def la ca des man nag est-ce que du kon guddi gu jot su ma saa fàddu nekk ci biir te gis ñu dara tàkk est du noonu la doon def ñaar rakkaan wala mu nekk ci leneen na moo tax suñu saxal su nekkul di bindit boobu ma ngay yëri móol su gëjee nelaw it boo xel ba moom ma ngay xool su nekkul di bindit boo ma ngay yëri móol daa xamante lay laa du ko tee dem ca pays yi di diwaan ca paas yo ngi ñu tànnal xiyaaree lay naan loolu itam sëriñ bi noonu nga xam noonu la ko doon dundee noonu la ko daa dundloo gis ngeen nañ ci wax ci li mu waxoon sëñ daam Abdourahman dégg naa ku ñu wax sëñ Modou Lo mu jaxat da koy nettali sëñ Amar jaxat yi tam nett na ma ko nee na ñoom bi ñu nekkee kër gu mag xam nga am nañu bare bare dañuy jàpp ne tarbiya mi ngi yemee bi sëñ bi jógee Touba nga xam ne kon tarbiya amatu te pourtant ña nekkoon ci kër gu mag sëñ bi daa leen teg mu jaade bu méttee mett kooku da ci nettali ne dafa am ab roq bu ñu leen yóbbu woon bi am ñu leen sotti lool dañ fa yàgg lool fande bi bari fa ak diñe bi ñaar lañ kenn ki sëñ fàllu sëñ fàllu Jóob lañ koy wax sëñ Masamba Jóob saam mooy baayam ki ñu wax mudloo ma jaxate lañ koy wax nee na sëñ fàllu Jóob ne ko mudloo sëriñ bi xanaa dañoo fàtte ndax kat ñun dañ fi yàgg te xéewal yi dañuy romb nday jooro càmmoon te duñ ci mos mun ko xanaa kay dañoo bëgg a sonal waaye fàttewuñu ndax ñu nekk moo ñu fi mun na ko mu ñuy def nee na sëñ ne ko su subaa suñu jullee ci jàkka ji ba noppi bu buñ tasa buñ def dara nañ ko xaar ci fi muy jaar rek mën naa am ñu gis ko su ko defee ñu wax ko mu jox ñu ci caabi yi ñuy tëjëgati ji kon danañ xéew lu ëpp xiif dootuñu rey dootuñu sonal ko sëñ Amar Jaxate nee na ni ko waxee sëñ bi ba mu jullee ba noppi dafa tolloo foofu booba ay barrière lañ ko def waaye dafa ubbi fenêtre bañ tollool daane ana ñooñu ñu wax ko seen bopp mu ne kaay leen ma jox leen dëkk xam nga kuréerul nga ne kaay ma jox leen dëkk kontaan leen dafay tëye ci seen loxo yi ne ñaar ñii dafa am ma seen bàyyi mu koo dab dabaatu ci yéen waaye dama leen di xamal ne man nit ki lu amul njariñ dama ko def loolu da dama bëgg li ma rawoon seen bàyyi ma def ko ci yéen waaye bokk na dana su ngeen xëyeetee ku nekk ci yéen na ñëw ma wax ko lu muy def ah, da leen di gorloo ay matt mattum njalam jalambaan moo xam ne daf koy jaaroo nee na par sebre la ko daa def ba nga xamee lay jariñ ba noppi nga jéem koo jëfee te nga jëfe ko ci sellal ak ragal yàlla waaye nag ci sàkku xam-xam boobu sëñ bi dafa am dafa am lu gën a far tawxiid la wax ak yee ca topp ñetteel ba jooju ngay jëf nag la ca ëpp njariñ ginnaaw ba nga toftalee farata yaa mel noonu loo xam ne njariñam day da nga ciy jariñu keneen jariñu ci ñeenteel ba mu ne nga wut wérd nga am loo xamante ne da nga koy sàkk bi set di ko def ci sellal ak di ko nëbb juróomeel ba tawxiid na ci jiit ak farata yi juróom benneel ba nga wut nit ku xam sunu boroom te topp sunu si yéen saa salaam ngir mu mën a jàpp ci euh, sa sa tum juróom ñaareel ba mooy nga sàkku leew te moytu euh, di tegu ci kaw nit ñi rek ñu lay yore lépp euh, te nga boole ci nag soo amee ba noppi nga bañ koo yàq juróom-ñetteel ba nga tegginu ak mbooleem nit ñi tàmbalee ko say waajur juróom-ñeenteel ba nga wormaal mbooleem ñi nga xam ne nit yàlla ak borom euh, yoon yi maanaam tariqa yi ci des te nga sàmmoon sàmmonteeg àqi jullit ñi sopp leen wormaal leen te liggéeyal leen bañ a topp seen i ayib fukkeel ba moytu waru fukkeel ba ak benn ku nekk war kaa wut mooy ay àndandoo yoo xamante ni yu baax la ñu doon te nga sàmm àqi àndandoo ji moom na sëriñ bi di wax wa rufqatun wa hiya ixwaanun lahum himamun kon foofu la mujje mu tënkee ci nag ci gàttal sëriñ bi daal njàngaleem moom ñëpp ñëpp ñëpp la waxal bàyyiwul kenn góor a jigéen mag ak ndaw ku xam ak kuréel sëriñ si ak taalibe yi sëriñ bi noonu mu doon jàngalee noonu la ko jëfee ñëpp di ko gis noonu la ci yare itam kon daa tax muy doon kuy kuy théoriser benn mbir daf koo jëf ñëpp di gis mu jëf loo koy dem ñu xam ne lu mënu la kon foofu la mujjee wax gàllankoor yi bi ci solo mooy ñàkk gee xam jàpp naa ne tënk bi xaw naa guddaan lool ndax jël na juróomi minute daanaka waaye li ma si jublu woon rek mooy wax ne ci gàttal sëriñ Ahmadou la doon séentu ci rafet na lool jàpp naa ne lañ doon séentu sax am na am nañu lu ko raw lu mel nii itam su amee mën naa ko waxal sama bopp yaakaar naa ne kon yoon yi mën naa jëm kanam su fekkee ne am nañ ay ndaw yoo xamante nii danañu wax lu xam-xamee loo xam ne jullit bu nekk mën nga koo dégg doo ca xebet dara luy mat a sante la loolu itam lu jar di góor góorgóorlu la ñu mel ni itam ñu jar di soññee lañ te itam mu wax ba noppi nag ñu eskay dem day xaw a day xaw a gàtt ci man lool kon ñu ngi sant bu baax a baax ñu ngi santati boog sëñ Ahmadou ci turu ñëpp ñi fi teew ak ña ko nar a déglu ji ndax xam naa ne danañ ci jariñu danañ ko lu ndax tegu na ci xam-xam te tegginu na te tënku na neex naa yóbbaale te lépp itam njàngaleem sëriñ bi de amul kenn ku ci man a wax ne lii sëriñ bi jàngalewu ko wala lii du sunna te sëriñ bi mooy sunna sunna mën nañoo jàpp ne mooy sëriñ bi ci loolu mbokk yi euh, ñu ngi fi yëgle itam euh, téere bii nga xam ne mi ngi nii ci ay tubaab dañ ko bind sama tubaab dafa sënul comme du bàyyi ku ko mën a liir mu ku ko mën a yër mu yër ko waaye mi ngi waxtaane ci mi ngi tënk boobu firi ci tubaab ndénkaane yi nga xam ne Cheikh Moussa da ko defoon muy xeeti discours yoo xam ne ay xew-xew ci la ko defee woon ci ñaaxaat taalibe yi ak di leen fàttali njàngaleem Serigne Touba ci arab la ko bindoon ñu tënk ko nii ci ñu firi ko sax ba mu egg ci tubaab waaye nag dañ cee laytaayal euh, ab tënk ci dunduk Cheikh Moustapha mi nga xam ne moo defoon euh, waxtaan yooyu wala moo defoon ndénkaan yooyu kon mu ngi nii yéen ñëpp ngeen jël ko xam ne ñu ngi ko firee ñi nga xamante ne ñooy ahbaat Cheikh Mouhamadul Moustapha mu siraat Cheikh Moustapha yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko defar nii jàpp lente ci ak commission scientifique bu majalis génn na ba noppi ñi ngi koy wecc ko lu yomb la lool ndax ñetti téeméer lañ koy wecc te jar na lu ko ëpp ndax jaroon na dox na mag ñi daa def dem ci koo am nga toog fa mu abal la ngay sotti kem man soo sonnee dellu ba beneen yoon nga disuwaat ba keneen nga ko eggale laay tàmbale man mudlamin julli ci xayril alamin tey tagg ngeen ji ilimaan axuusu billahi al min sarri saytaani rajim man ma demin maay jiima jiim nu may tagge am dil xadiim yam na xadiiman Mustafa yow mii ñu tudde Mustafa yaa jëf lu jàmmal surafa daane mii ñu tudde Mustafa yaa jëf lu jàmmal surafa daane nga mbëri sooga dem sa tur wenn rawu sa waajurit kenn gënu ko saw kenn siku sa jikko kenn du am li tax amoo yow dendandoo jagle am ciw ngir koo fi turandoo amina tudd doon ndayam mbaa bu ami doonee ndayam seexul xadim du waajuram te it du am ngor bi kon mee tafa may mii tafa mu li tax mu sang ay kemam Madina géeg Taayif gële Tuubaa ji léeg Taayif gi léeg ñoo fa tollale ku neex nga dem na ba xam taar ba newoon ca Mustafa moo nekk it ci ñuy tafa wir ga newoon ca Mustafa gis nañ ko it ci ñuy itam Cheikh mësula war telum la wax loola la nar moom lu mu la dig faye ko bor kenn mësu koo gis mu bangam bu dee ci taar moo raw ko ne bu dee sawar moo raw ko ne fu mu toll di kun ko nii ngir bëgg lislaam jëm kanam ma wax la tuut ca tabam nga xam ne Moustapha kemam li tax amul fenn itam la Moustapha bi ñàkk kem ne ñaare yi jëm ci yow na ci yow dëgg yow kii jóg fajar xëy si la yow ak kii tañaxu ak lëndëm kii fajaru dafa fanaan jaaxle ci jël mbaalu mu naan yow rek la foog ne yaa ci man dara degul gan ci kii nekk ba guddi gi lëndëm mu wër ba jaaxle fu mu jëm te la am dundug subaam yow lu na laaj rek nee ko am nii mën a wax la daa defee lum la digal noonu lay jëfee xaaral ma ne tali la fii moom ni mu bis aw jiwam daa fàgg woon moom aw jiwam ba ñëpp ñëpp foog ne moom day daa ji mu fab jiwam jox mu def ko ab dundam dane ko xaalis nekku fii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 la mu jiwoon nag sax na tey ku dem ba teew tindoo di tey xam ni liggéeyal yàlla di Cheikh Moustapha rek a ko xam la mu jiwoon nag sax na tey ku dem ba teew Madina tey xam ni liggéeyal yàlla di Cheikh Moustapha rek a ko xam la mu jiwoon nag sax na tey ku dem ba teew fee taayu tey xam ni liggéeyal yàlla di Cheikh Moustapha rek a ko xam la mu ji woon nag sax na tey ku ñëw ba teew fii béyti tey xam ni liggéeyal yàlla di Cheikh Moustapha rek a ko xam nger ku nee ngi yor yëfam boole ca màng waa këram naa tey jile ma dem ngir am di laay sàkku mbégam lii lépp na xam nga li tax daa yéere nit ku ne lu baax du jëf lu ñaaw du wax lu nëx du yàq kenn ab deram dadaa jëfandikoom xelam lu néew la muy laal baatinam ngir nee na nit ku nem xelam la di natt ay mbiram ku yor la xoy neenam di xeex nga dóor ko ngànnaay dootu xeex baatin dafay defar du xeex koo yee saa yër mu gërëm amoon na kàngam yu ko ëw yu dëddu woon wan ko ginnaaw te mësu caa wax nit lu ñaaw nite gi daa jiitu juddoom baayam ya ñépp a ko gërëm mbokkam ya ñépp a ko gërëm daa mujjub ñépp ñëw këram tuubal ko toog fa ne gurum ku ne di sàkku am mbégam jaambur ñi ak ñii di mbokkam am di du mer te du bangam defar na lépp soog dem li tax nga xam ne moo fi gën daa ma woote genn ngan mbokk ak dëkkandoog ñii di gan ku ne na ñëw mbégam dañu fa yendoo nag ba ngoon ba ñëpp julli takkusaan nan daje waxtaan door a ñaan te maa ngi nii ci seen kanam lu waay bëgg na daa wax danaa ko def bu dee lu baax lu waay xalaat rek na ko wax bu kenn nit ñi yëpp lu ay mbiram mag ak ne tey ñoo fi am sëriñ akub tey betam kenn ku nekk na wax bëggam danaa ko sekk lu dégam ba ñu waxee ba noppi nag bam saafara ràgg ya na la wax ne naa dénkaane nag saa bopp ak samay moroom ñaari béy la digle woon lam digle woon ca la ne woon loo gis jagul tuddal keneen du jëfi am duy waxam ab sang akub sengayam day fiiti woon naaj fab jox ko ña nekk ca ronam ku ne mu jox ko lay àqam taalibe day fab yëfam jox sëriñam ba ko yëfam lu mu ko digal mu ne naam gënal ko fopp ba kanam ku melagul nii sangagoo ab nii bu ñax nga séngagoo bu bu ndaw nga màggagoo sang dafay seggi mbiram ku melagul nii duggagul taalib dëkkat du aw kangal sëriñ du doom ku ñuy digal loo jëf ñu fay la ak payam Cheikh Moustapha jëfi sangam landi na këm xamul sikkam xaaral maraay sama sikkim wax leen ci tuut du nee xalim Cheikh Moustapha jëfi sangam lan dina kenn xamul sikkam xaaral maraay sama sikkim wax leen ci tuut du nee xalim daa ma sa tukki biir Kajoor ànd fa nag ak seen lu ngóor ñu jox ko foofu lim dëkke ngóor soo saangalal rekk pexeem ba ñu demee ba cët déwén ngóor soo sa jiitu fa ne leen sëriñ bi nee nakat na ma jox ma it ko addiyaam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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu teew ci jataay bi ñu leen di nuyu nuyoo bu bàyyi ko ci sëriñ Abbas mi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Ibrahima borom Daaru Muxti jëm si ci ñun sëriñ Ahmadou Moukhtar ak mbooleem njabootu sëriñ Ahmadou Moustapha may indi néew boobu ànd ko ak bokk yi nga xam ne tudd nañu seen tur yëpp te jàpp naa ne sax tudd gi am na lu des waaye loolu taxul ñu ci ñu fi teew taxul ñu fi teew dañoo ñëw ngir jëfandikoo ndigal mi li nga xam ne moom lëkkale ak sëriñ bi loolu kon ku ñu tudd ak ku tudd ñëpp xam nañ ne teew ci barab bi lu mel ne li ñu waxoon fële ne alxaj u arafat teew ko rek ñu xam ne jàll ko bu ñu gisee sëriñ Xaadim dox loolu mu nekk kenn ci loolu di koo xam ne ñi nga xam ne xam nañu dara ñëpp nangu nañu ko ci xam-xam akub tali bi ñu yóbbaale bokk yi nga xam ne ñoom la ñu àndal yépp te sëriñ bi di sëriñ Abbas nga xamee ni wax na sëriñ Abbas mu ndaw moom sëriñ Bachir am nañu ak bokk yi mu àndaloon ngir ñu jot li ko njabootu borom daaru moo ko jëpp def nañu seen kéemtalaay yu kàttan ba ñu bare ba yëg nañu ko. waaye dafa am ñoo xam ne ñi ko Serigne Cheikh Anta moom Daaru Salaam di faral di kenn ci nun ku nekk fu mu teew ci barab bu ñu jàppee ne teewalaale mu fa ñetti def ñëpp rek kon am na lu des kon ku teew ku nekk rek teewalaale ñetti des moo di ne Serigne Abbas am na ci ñoo xam ne sax moom ci boppam moo jokkoog ñoom wax ak ñoom ngir xamal leen tolluwaay bi nga xam ne moom la mbir bi di wone kon ittiwoo gi mu am na ginnaaw bi nga xamee ni rafet na war naa am mu amit rafet na na ko te loolu yóbbaale ne jabootu borom daal moo ci jëpp ñi sant bu bi nga xamee ne ñëw na keroog ak sëriñ Daara moom sëriñ moom sëriñ Mahmoud al Xarilo ngir jot ni ko sëriñ bi jokkoo gi ci téléphone yëpp loolu lépp day wane ne rek li ñuy def lu nekk am na fu ñu ko teg te fi ñu ko teg mooy li nga xam ne mooy li am solo loolu moo di lan moo di dañoo bëgg wane ne euh, li def mooy dëgëral trois su saytu xatim moo bu baax wane li nga xam ne mooy ndono li ñu war a jële ci Serigne Touba ak ñooy Serigne Touba. ñooy Serigne Touba Serigne Mamadou Moustapha ñooy Serigne Touba borom Daaru Muxti muy ci ñaari wet yépp loolu moo tax bi ñu xoolee li ñu wane xaaral ko muy exposition bi gis nañu baax ne bëgg nañu wane ne li fi nekkoon démb nii la meloon nii lañ ko dunde woon te war nañoo jéem a seet ni koy jàllalee ci kanam nga xam ne suñ yomoon ci loolu rek dana doy sëkk loolu sax laa ñu ci yàgg si yéene ji ak pas-pas bi nga xam ne moom la am ngir dundal liggéeyu Serigne Touba ci diggante Serigne Touba ak borom daaru moo fi te kenn jiituwul ci Serigne Mamadou Moustapha dafa naa ne amoon loola rek dafa doon bi nga xamee ne Ahmadou def na def na waxtaan bi nga xam ne moom lañ ko sarsoon ngir mu def ko mu nekk loo xam ne suñu fierté la am nañu ci gërëm bu baax. ndax euh, ku sañoon boo jëmbatee dina mag kon gën na ci bu baax ci ci li mu ci exposé ñu dara ci xel kat bu baax ne euh, loolu mooy li war a am ndax euh, course bu ñëw nga ñëw moom mënut a nekk kon war na jaadu dara ñu tàggat wane ñi nga xam ne ëllëg ndegam doomu aadama bu béel ak nu mën a mel ama jon lam xaalidin du ñu du ñu béel li nuru de béel am na moo di li fi Sëriñ bàyyi woon waxtu ko ne boo xoolee gis ko mu mel ne mi ngi fi sa wet li fi boo xoolee gis ko muy dund nga xam ne mi ngi fi sa wet borom daal wuti noonu keneen noonu keneen noonu loolu moo tax mbir mi ñi nga xam ne ni la ko junjee ci temps alayhi Cheikhul Xadim dëgg la ñu koy tudd bari na lool ba tax na junj yooyu mu ci junj am na solo lu tax am na solo bokk na ci euh, Serigne Touba li muy yëkkati di ko jëme ci ñoñam te ñoñam mooy képp koo xam ne way gëm yàlla la da koy misaale noo xam ne soo amee dëgg dana yaatu lool te mu bari ci loo xam ne. téere yi nga xam ne moom la ci taalif ngir ñu joti yi waxtu bi ñu koy jàngee li ci ëpp doole dañ koy jàngee ci ak ndaw ba dëgg nga ca war dëgg-dëgg day xaw di des faw nga dem ba ca kaw nga wàccaat dellu siwaat xool ko door a xam ne dëgg-dëgg lii ndekete ba nga cee romb da nga jàppoon rek dañ lay jàngloo ngay jàng waaye lii nekku ci woon loolu moo tax gëstu yi nga xam ne moom la raw du rayax yi di def ak yeneen yu mel na mooy li xew ci ëtt bi di delloosiwaat li amoon démb loolu da ciy loo xam ne lu am solo lay doon ndax addiinu nasiha kon bu sëriñ bi ne akum nasihaati lakum fa tarbahu ndax euh, sëriñ bi bu waxee loolu kon li nga xam ne moom la Ahmad doon junj léegi kon dañuy xam ne mboolem li nga xam ne moom la sëriñ bi wax ne. nii la ñu war a doxale suñu diine nii la ñu war a gëme suñu diine muy imaan bi ak islaam ak ihsaan defe naa ne lay sunu warugar ñun mooy xool na mu ko doon dundi ak na mu ko doon doxale ak na mu ko saxale nu nu nu wéyale ko noonu waaye bu ñu xoolee ne am na ci jamono ñoo xam ne e, boo leen dee déglu te fépp nga xam la nga waroon a xam soo moywulee njumte dina la dal fan yu néew ci bisu tamxarit bi maa ngi dégg benn waay boo xam ne su fekkoon ne tur bi rek nga nga te waxul ne man ci diine lislaam laa bokk doo jàpp mukk na ci diine lislaam la bokk ndax turóom tegtaluwul ne ci lislaam la bokk ba mu demee ci biir wax ja ña ko doon waxloo dem na ba wane ne daanaka képp ku bokkul ak moom fa mu féete daanaka la mu wax buñ ko doon wax ko saaga lañ koy jàppe ci mboolem koo xam ne ci gëmut li nga xam ne moom la gëm te yooyu dafa mat dafa mat moytu li tax mu mat moytu nag moo di ñi nga xam ne xam nañu li ñu war a xam ci seen diine eh, am na waaye ñi nga xam ne xamuñu ko ñoo gën a bari kon bëri bi ak farlu bi foofu la war a foofu la war a jëm mooy takum nasihat yi lakum fatarbo dunia wa axira ñooñu sëriñ bi wax naan xaw min afrahu ñooñu ñooy ñan sëriñ Tuuba ak waa këram loolu mooy li nga xam ne moom la ñu war a xool nan la ñuy jaar ko am ci dara nag mënuñu koo may lu dul ñu dellu ci njàngaleem moomu yar ko ne jàngal leen xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xamu diine ñu sukkandikoo ko ci li nga xam ne moom la sëriñ bi gisee noonu la sëriñ bi doxalee loolu mooy li nga xam ne mooy mën a tax kenn ku nekk fa nga nekk soo ko wéetee da nga mën a dundal liggéeyu sëriñ bi da mën a dundal li nga xam ne mooy bëgg-bëggu sëriñ bi te loolu mooy li nga xam ne nag mooy ndono li ñu war a jàllale ci wax waxtu bu nekk ndax bu fekkee ne jàng jàng mi nga xam ne moo war ci wàllu diine ci njaboot gi defuñu kenn ku nekk da nga taxaw ku mel ne kii ma la doon wax léegi ne dégg naa ko te am na ñeneen ñu ko dégg mën nañu réeral koo xam ne bokkul ak moom gis-gis te defe na la mu nekk dara la ndax wane na ne moom am na tarixa bu mu bokkoon ci biir réew mi ginaar bi nag génn na ci tarixa boobu dem na ci leneen waaye boo déggee na muy waxee rek da nga xam ne kii li muy wax xamu ca dara te bu ñu ko tontontee bu tontontee amee loolu dafa daal indi li nga xam ne moom ngay faral di dégg ci réew yi ci tànk mu mel ne ay jàppante ay ay ay tarixa wala ay basaay wala yu mel noonu te loolu xajul ci xajul ci réew mi ndax li fi Sëriñ Tuubaa saxal ak li nga xam ne ñi nga xam ne ñooy mag ñi mu dajeeloon li ñu fi saxal ak li ñu am jëlee rek ma xolay ci maali dafay nekk loo xam ne di day na sëkk ngir ñu am fu ñu teg suñu tànk kon benn li nga xam ne mooy li li war a nekk mooy li sëriñ bi wax ne eh, moom lépp loo xam ne mi ngi koy jëngal te di ko yëkkati te di ko saxal ci xam-xam rek la koy teg ci xam-xam la koy teg kon képp ku bëgg a ànd ak moom bëgg saxal li nga xam ne moom la feeñal moom la indi faw xam-xam boobu moo war a moo war a jiit bi la mu loomi loolu mooy li nga xam ne ci lañu war a mën a jaar ba jàpp ne suñu bopp ne duñ jàppale sëriñ bi sëriñ bi moom am na li mu am ba noppi ñun nag loolu mooy nga xam ne moo nuy mën a may mu am ngërëmam mën a am li nga xam ne moo tax ñu topp ci ginnaawam te lool bu amul dana dana manqué loolu yàlla baax ne bi nga xamee ni xam-xam baa ngi fi sawar nañu ci wane ko am na ñu ci toll bu baax a baax te li fi nekk itam mëni su ko yëbu fenn ñu di la gotti defe naa ne kon feeñal ko ak di ko li nga xam ne ñoom la rawatina bi def sëriñ euh, xaadi jaxate ñoom defe naa ne la boobu dafa nekk loo xam ne ci wet yëpp lañ ko war a lañ ko war a jëlee loolu nag moo nuy may ñu gis ne kon eh, li nga xam ne ni moom la ñu yëkkati ne borom moo Muxti ci ëttub Serigne Serigne Mouhamadou Moustapha dafa naa ne loolu li muy teg ci bari ndax Serigne Mouhamadou Moustapha ak borom Daaru Muxti ci nekkul Serigne Touba loolu la doy sëriñ ab ànd muy ndigalu Serigne Touba lu mu àndeek moom lu mu lu mu jëflanteek moom bi nga xamee ni tam Serigne bi dem na ci liggéeyam bu tedd bi nekk gi mu nekk ak moom it doy na sëkk muy tegu bi mu tegu ci loxo moom ñi nga xam ne ñooy njabootu Serigne Touba ba nga xam ne a Cheikh Saleh radiyallahu taala anhu daf daan wax ne bàyyi Cerno sëriñ bi bi muy dem ci géej gi lépp lu mu am ci njaboot ak lu mu yor ci loxoom la ko teg loolee nga xam ne kon boo xoolee Cheikh Mouhamadou Moustapha ci nekkuk sëriñ Touba xool ko bi sëriñ bi demee ci liggéeyam bi xool ko bi sëriñ bi dellu seen ba nekk njaareem xool ko bi sëriñ bi ñu ci bis bi nga xam ne tey moo defe naa ne loolu lépp foo ci xool diggante ba borom daaru mu bi da nga xam ne lii ngeen def yell na jaadu na te aw jàngale la boo xam ne war naa mën a génn démb indi ko tey boole ko ëllëg ko defee loolu mooy baax ndax borom xam am na ci dañuy wax ne da ngay jël démb boole tey moo ñu ëllëg su ko defee mu baax loolu mooy bi euh, nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Moustapha nekkoon ak borom daaru moom ci nekkuk Serigne Touba euh, bi nga xam ne Serigne Baye Serigne Abdou Khoudous sëriñ euh, Cheikh Fatou Fall sëriñ Abdourahman ñooñu ñëpp nga xam ne euh, jaar nañu ci jaar nañu ci jaar nañu ci loxol sëriñ Mamadou Amine Gueye euh, sëriñ Touba dafa jël ci toxol ci loxol sëriñ Mamadou Moustapha la leen teg ne leen yóbbu leen ci sëriñ Mamadou Amine nga xam ne loolu leneen la nga xam ne loolu moom ci ndigalu sëriñ bi la ko defee ba mu demee sëriñ bi jàngal leen sëñ Tuubaa dafa dafa wax sëñ Maodo Moustapha ne na wax sëñ Maodo la daf koy xaw a askanale ndax Abdul Quddus bi mu ne Mawaahibul Quddus dañuy Abdourahman tax yi noonu la ko ko defal te ñoom du ñu du bi nga xamee ne Serigne Mamadou Lamine Gueye jàngal yooyu nga xam ne moom la Serigne Touba teg ci loxol Serigne Mamadou Moustapha mu yóbbu ko ci ñoom bi ñu noppee daf leen wax ne li ma xamoon jeexut waaye lii dañ ma santoon ma def ko ci yéen bu ngeen delloo nag dama am naa ndigal ma door a jàpp foofu la yemoon ñoom ci téere yi sëñ bi bindoon rek la yemoon ñoom waaye gis nga barkeel bi barkeelu suñu borom fu mu xas nekk duutu fa jógee ba mukk ba ñu fa jógee loolee ba ba ñu dikkee ne waaye yaakaar naa ne boo xoolee ginnaaw bi da ne eh, barkeb sëriñ Tuubaa bi wuyu na leen ci ne ci loxoom ne ne leen nañ leen jàngal téere yi ban ca làmbaale moo ko rek moo ko moo ko xam bi nga xamee sëriñ bi ñëw na euh, Touba nga xam ne mooy bis bi ñu fi dajale tey sëriñ Mamadou Moustapha ak borom Darou Mouhty mbooleem ñi nga xam ne ñooy yoon ñëpp dañoo wax ne eh, nga xam ne sëriñ Mamadou Moustapha ci wet gi bi di ki mag ak njabootam ak borom Darou mu jim ko féete woon ñoom ñaar gën nañoo feeñal matuk sëriñ Touba ci li nga xam ne moom la fi bàyyi ginnaaw ndax ku dem bàyyi ñi nga xam ne dara du yàqu sa ginnaaw te Sëriñ Tuubaa sax dara du yàqu ginnaaw bu waaye mu wanee ne ñii matale nañu li nga xam ne moom laa fi bàyyi defe naa ne loolu la ca mag ñi doon wax juumuñu dañ wax ne ñaar ñi fii sëriñ bi bàyyi nii ak ñi ci seen ginnaaw wane nañu loo xam ne wane na ne Sëriñ Tuubaa amul morom dañ ko daan wax ci seen biir ñoom mag nga xam ne ñoom fekke woon loolee ñu ànd taxaw taxawaay boo xam ne loolee mooy indi tey yoon yu dem ba ba taxaw nii mu taxaw Cheikh Mouhamadou Moustapha jëfee ci loo xam ne kenn mënta werante mukk ne loolu mooy fondation taxawaayu yoon bi ba fii ñu toog day di wax mu nekk loo xam ne nii lu ma lu jar a fàttaliku la lu jar a dundal la ci wàllu bi nga xam ne moom la seqal borom daaru mooti nga xam ne du ñu mën a wax lépp de waaye ci jamono yooyu bi sëriñ bii dem fekk ni borom daaru mooti li mu bàyyi ci dugub ci cunkoo mat na euh, ëpp na cent tonnes dugub li mu bàyyi daaru salaam yëpp ëpp na cent tonnes dugub li mu bàyyi daaru Koso ëpp na cent tonnes dugub li ci ne nag bi sa moom bi Moustapha ñëwee da ko lii day Serigne Touba dañ ko fi dencaloon te yaa loo ci wax loolu la ñuy def Serigne bi di yoon wi kilifa yëpp kenn ku ci nekk loo soxla ci dugub da ñëw boo déggee ànd ak sa njaboot. bojj ba am ba doy ba ba sa am sa dund bu doy nga saf dem keneen ñëw keneen ñëw noonu lañ ko defee nga xam ne kon Serigne Touba li nga xam ne moom la bàyyi woon ci diggante borom Darou Mouhty ak Serigne Mouhamadou Moustapha wane nañ ko ci kanam nit ñi ba ñu xam ne ñoom ñii kat lii ñu wane loolu mooy li nga xam ne mooy mooy yoon kon defe naa ne li nga xam ne mooy leen Serigne Touba mi ñu doon wax bu ñu ko xoolee ci wàllu woowu danañu gis ne bu ñu xoolee ci sax Mouhamadou Moustapha ni nga xam ne nii la nekkee Serigne bi. keroog bi nga xamee ne sëriñ bi suñu borom jëfandikoo na coobareem mag gi nga xam ne def na ko mag gi nga xam ne dund na ko ci ci ci jamono yooyu ak fan yooyu ak waxtu yooyu de defe naa ne loolu ku ñu waajal du ko mën mukk te loolu mooy li nga xam ne mooy wane ne kii mat na ndono ki nga xam ne kii mooy bàyyi ko loolee nag kooku yàlla may ku nekk war nga koo téye ci te jamono toll foo xam ne bu fekkee ne jëluñu njàngale moomu dund ko dund ko ba beneen ba ca des itam mooy li sëriñ Ali doon wax léegi tarbiya xam nga ak tarbiyatu wa taalim du du du benn nit ki bu fekkee ne dafa dafa jàng itam te te yar ba ca war a nekk amut mooy li sëriñ bi wax fa kasaratu lay nit ba xëy adabi jalibatun ila al adab wa taam te loolu booy xool di ko gis da nga gis koo xam ne ki dafa jàpp ne ni mu mel loolu rek mooy dara ni mu mel wala li mu xam loolu rek mooy dara ba tax na muy dal ci kaw ñu mu dal di doxe nu mu war a doxe di waxe nu mu war doxe nga gis koo xam ne kii bu dee wàllu xam-xam moo la ko ëppale fopp ëppale ak fopp gën laa nangu bi digle da gën laa nangoo jaar ci sëriñ bi xam defe naa ne loolu bu dara da nga xam ne kon li gën mooy jaar yi nga xam ne moom la sëriñ xam ba koo xam ne eh, yaa ngi tuddoo ci yoon wi ba noppi di bëgg a doxee waneen doxin bu bokk dëgg yi Cheikh Mamadou Moustapha daal dox ak borom Daaru Muxti ci nekkuk Sëriñ Tuuba ak ginnaaw Sëriñ Tuuba yaa ngi nax sa bopp te loolu moo lay indil jaalibatun ilal adaa wa taab dangay fan yi rek gis nga koo xam ne mu mujjewut lu weesu maa ngi tuub ak maa ngi jéggu loo xam ne loolu loolu bu xamoon foofu la ko toll du ko du ci woon dugg te mbirum mbirum Sëriñ Tuubaa képp ku mës a dugg ci e, jéem koo song ku nekk daanu la amul ku mën a doon koo xam ne kii jéem nga koo song te daanu du ci kanamam du ci gannaaw ndax bu mu fi jógee ba ba ba fii mu nekk nii nañ ko doon fexeele booba ba léegi noonu lañ koy fexeele waaye fexe yooyu mus a soppi boobu benn yoon koo xam ne kii da ngay tuddóon nekk ci mono te jaarale woo ko ni ko war a jaarale dundoo ko ni ko war a dundale wa man yuridillah fa maa lahu min mukrim te fam loolu ba lañ boo ci xasee dugg jàpp defe nga ne yaa ngi ci dara waaye nekkoo ci dara te yàlla moom ku mu ku mu teralu kenn mënu kaa teral mu ko terale waaye ki yàlla teral dëgg-dëgg gëm nañu ne mooy nga xam ne kii nangu na liggéeyu Sëriñ Tuubaa nangu na koo roy te fas na ko yéenee dundal te dundal gi nag mooy euh, euh, dundal ko ci xam-xam bi li nga xam ne mooy li mu li mu li mu li mu waxoon moom ci boppam Ahmadu junj na ko léegi moo di man dama gis ne ñetti ñetti was la yoo xam ne war a ma ne ku ci teg sa bu baaxul bu nekk ci yow la moo di gone yërëm mag gone wormaal mag mag yërëm gone ba noppi nag yaa ayyuha tigaan in xiftum ajalan faqaddimu taaluman ala amal maanaam faw jëf ji na ko xam-xam di jiitu mag mi na yërëm gone bi gone gi na war maanaam bi gis nga yett yi buñ ko boolee xam-xam bi di jiitu ci jëf ju mën a doon du nekk te loolu la nu sëriñ bi sant ñu di ko def kenn du nu mënal kenn du nu mënal dara fawul fi fi mu bëgg nu àgg fa danañ fa àgg waaye buñ ko safaanee itam dara dara du sotti te nag lépp lu mën a doon lu nekk nañu xam ne lu fi yëngatu lu nekk ak fu mu fi yëngatoo moo xam fa ne ci daal moo xam feneen la fu a doon lu nekk ci tuddoo ci Serigne bu fekkoon ne du woon dara du yëngatu moom mi nga xam ne nag moom moo tax lépp lépp taxaw kon dañuy mën a def lu nekk ñooñ mag ñooñu ko xam ne dañu jaaroon ba am ngërëmam fa ñu jaaroon ba am ko dañu jéem a jaar ci yoon woowee loolu bokk na ci tarbiyatu rox tarbiyatu am na kilifa bu baax ko moom mos a wax ne ma tasiilu ma sabata lil mushafaa yi sëriñ mu ngi ci mu ngi ci jublu wala mën na sa cee déggee tarbiyatu root ndax dafay fekk daaree alxuraan fekk bi daaree xam-xam bu fekk bu doole ci daaree tarbiyatu root loolu nag bu fekkee ne dañ ko bëgg a négliger ngir ragal ñenn ñi nga xam ne adduna rek la ñu gëm te moom la ñuy doxal te boo waxee ñu wax ne am na lu ñu koy waxee xaw ma tubaab yi jub na wala jubul exploitation de l'homme defe naa ne loolu kuy daw loolu dafa boo tuwul seytaane dana la dugg ndax li Serigne Touba sosoon Cheikh Mamadou Moussa jàng na ko muy dox ba nëgëri ñi nga xam ne ñooy bokki Serigne Touba da ko tàmbalee ci Mame Mor Diarra ba ci ma Massamba ñoom ñëpp kenn ku ci ne di dundal loolee ku defee nekk am na leneen lu mën a wuutu lool wala am na lu ko mën a firee leneen lu dul li ko Serigne bi tërale woon xamal ne xamoo ci Serigne bi dara te itam jaaroo fa Serigne bi kon kon nañu. gën a farlu ci xam-xam bi gën a farlu ci ni ko sëriñ bi daan jëkke bu nu am soxla ci lu dul ni sëriñ bi daan jullee bu nu am soxla ci lu dul bi daan woore bu ñu am soxla ci dara ci lu dul ni bi daan dundale diine dañ ko dañ ko dundale noonee leneen la ci des itam ni mu daan yare njaboot bi nañu ne yare njaboot bi ci loolu waaye buñ ci soppee dara rek bu nu jëppee dara bu nu jàpp buñ ci jéem a soppi dara nañu li li mu fi daan def di ko wane nii ñi di ko dund te dara dara nëbbu ci dara laqatuwu ci waaye nag buñ am complexe ci kanam kenn ba tax ñuy bàyyi ci doxalin yooyee dara loolu ñu ko defee dañu lor suñu bopp Serigne Touba ku am am nga loo xam ne lu lu kenn amul la Serigne Touba ku am ku nekk am nga loo xam ne moom mën ngaa waat ne eh, mën na laa jëriñ tey mën laa jëriñ ëllëg ndax ci biir loolu war nañoo mën a jàng bu baax ngor gi nga xam ne moom la borom daal moom tey nekk woon ak Serigne Touba war nañoo jàng bu baax wor yi nga xam ne moom la Serigne Mamadou Moustapha fayee borom daal moo tey ñu ànd dund loolee war nañoo jàng ci ñoom loolu jàng jom ji jàng fulla ji jàng nangu ngay liggéey jàng nga nangoo toppante ki war a jiitu jiitu ki ci war a topp topp ji ñu teg ko ci nag fi nga xam ne moom la sëñ bi xaloon mooy xam-xamu diine bi ak yar njaboot bi ak tarbiye leen ci li nga xam ne lépp ci ñoom lay delluwaat te loolu bu ñu ko defee mooy suñu njëriñ tey mooy suñu njëriñ ëllëg defe naa ne euh, li nga xam ne moom la Serigne Abbas soxla woon ci mboola nu ñu ànd ñu ñu teew fi won leen ne leen njabootu borom Daaru Muxti gépp bég nañu ci ginnaaw bi nga xamee ne moom bég ne ci li nga xam ne wane na ne mooy euh, liggéeyu Serigne Touba bi nga xam ne du yàqu mukk dara mën ko tilimal ñii lañ ko war a dundalee te yaakaar naa ne nii nga xam ne ne lañ koy dundale fii ci Touba rawatina fii ci pàkk bii ñu nekk nga xam ne mooy pàkk bi nga xam ne fii la Serigne Touba yaakaar jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi xaw sallam xamal ko ne ñi nga xam ne ñoom nga ànd ci sa ginnaaw muy jeexal fa ñu àgg ak nañu mel noonu laa bëgg a mel foofa laa bëgg a àgg yaakaar naa ne fii ku fi toog di wax mu nekk wala nga fa toog di fàttali ko Serigne Touba war ngaa xam ne dëgg rek moo fi moo fiy jóge lu baax rek moo fiy jóge njariñ rek moo fiy jóge te yaakaar naa ne bu ñu ko lëkkalee rek diggante Serigne Mamadou Moustapha ak borom Daaru Muxti bi nga xam ne lañu ñu seq ma ko wax ci ñetti barab yi ñetti ñetti daraja yi bi ñu fi bokkee nekk ak Serigne Touba demagul ci géej bi ak bi nga xamee ne Serigne bi dem na ci géej bi ak bi nga xamee ne Serigne bi ñibbisi na Touba benn bu ci ne boo ko xoolee fu ci ne mandargam euh, lu ñu mën a tuddee ngoru kese rek ma nga ma nga fa lu ñu mën a tuddee itam ki war a jiitu jiitu ki ci war a topp topp ci ma nga jëkk nga xam ne keroog bi nga xamee ne Serigne Amadou Moustapha moo war a toog nga xam ne pièces yu bari pièces nañ ko borom daaru moo di xool ba xam Euh, naka lay gën a dund ginnaaw Serigne waaye pièces yooyu te ñi ko doon def yëpp fekk ni sët bi li ci biir ay nit la yuy jege yu xam ne xam na Serigne Touba defar na leen ba leen a yàqal te loolu mooy nga xam ne ba nëgë ni dara ko yàq ku ko bëgg a yàq yi nekk yaa yàqu waaye du yàqu ku fa bëgg a jële li li fi nekk yaa waaye li fi nekk du fi jóge mukk kon loolu lañu war a gëm te dund te xam ne Serigne bi defaral nañu lépp baaxalal nañu lépp ñu jël ko jariñoo ko rek mooy li nga xam ne bii mooy li ci des kon war nañ ko mën a jariñoo ci kaw àndandoo ko ni ñu ko war a ànde jëfe ko li nga xam ne ni lañ ko war a ni lañ ko war a jëfe moo di ne lii ngeen def nga xam ne jamono moom wax naa ko léegi exposition bi ma ne xaw ma nit ñi ñoom soxla nañu koom de waaye jamono soxla na ndax da da da yaa yëg yu nag ndax nit ñi léeg-léeg dëgër lu xam lu ñu bëgg dëgër lu xam fu ñu nekk doo xam lu fu ñu féete waaye jamono moom soxla na lii ngeen dem moo di delloo si démb taxawal ko wane ne li woon mooy tey te loolu moo mën a defar ëllëg yaakaar naa ne loolu ku am xel ku nekk war nga ko mën a jariñoo di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñan yàlla sunu borom li nga xam ne moo fi dajale muy Serigne Touba ak Cheikh Mouhamadou Moussa borom Darou Mouhty lépp loo xam ne ni am ñu ci gërëm sunu borom seet ñu ci te ñu may mu euh, dun jàdd mukk yoon wi nga xam ne mooy mooy yoon wi ñu xam ne mu xàlloon moom së Touba borom Darou sax Mouhamadoul Moustapha nekk ni te e, mandarga mu tuuti rek boo xoolee sax Mouhamadoul Moustapha e, jamono yi mu wutu Serigne Touba boo xoolee sax Mouhamadoul Moustapha li nga xam ne e, moom la liggéey ñu ko moon ñu ko doon mën a wax ci wàllu xel rek sëñ Abdou Khoudous daf daan wax naan sëñ Abdou Lahad bu dul woon Serigne Touba ji xel na àdduna te kenn ku ne xam ne Cheikh sëñ Abdou Lahad maanaam fi mu tegoon sëñ Mouhamadoul Moustapha ak li nga xam ne moom la doon roy ci moom ak li nga xam ne moom la doon dund Cheikh Mouhamadou Moustapha li nga xam ne moom la taxaw ci ginnaaw sëriñ bi li nga xam ne moom la liggéey ci ci ci liggéeyu jumaa ji defe naa ni day yàgg mu nur lu ñuy muy nur loo xam dañ koy nii na niin ba duutu nuru lu lu lu rëy loo waaye fekk lu ko gën a rëy amul defe naa ne li jëlee raay bi indi ko indi ko indi ko Touba defe naa ne bu doon ci jamono jamonoy jamonoy jamonoy léegi ji leneen la ñuy wax waaye duñu wax mukk na ko nit ñi jéem a gas di ko di ko di ko di ko ko indi waaye nag loolu mooy tax nga xam ne kii mooy yàlla cëral mooy lii day diw dong moo ko mën a am lii diw dong moo ko mën a am ku am loolu rek ne am na lu des lii Sëriñ Tuubaa rek ko mën a am daal di ko loolu mooy li nga xam ne moo mat a wut loolu mooy li nga moo mat a sonne te ku sonne leneen lu dul lii itam day delluwaat yi boo ma ni gi ni daa ko maa ni sadaqallahu al-aziim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu santee suñu borom tabaaraka wa taala ñoo ngi jëm ci yonent bi Muhammadu rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam ñu sant suñu yaakaar tey di Xaadimu Mustafaa Cheikh Ahmadou Bamba di ñaan Cheikh Sidi Muxtaar suñu borom yàggal ko fi ba naan yi ñaanal xam ne rasul mu eggale ko eggale waaj moom ci lépp dëppoo ak gën a bu baax jataay bi nga xam ne bokk na ci jataay yi ànd ak ngëneel ci biir jataay ndax ni mu làmboo moo di ñu ci maam Cheikh Ibrahima Faty am Thierno Birahim ñëw ci kër Cheikh Mouhamadou Moustapha loolu démb la tey door tey door yi ndax Cheikh Mouhamadou Moustapha ak euh, na ko sëriñ bi waajale ku mu jaar ci sa loxo muy maam Cheikh Ibrahima Fati kooku doon ci caaxaan kooku jàmbaar la ñu leen di jottali cantu sëriñ Ahmadou Mokhtar ak um nuyoo ak njabootu Daaru Xudoos yëpp tàmbalee ko ci diwaan bi nga xam ne dafa dajale kër Cheikh Mamadou Moussa Faye ak conseil supérieur bi nga xam ne moom it njaboot bi la dajale te sëriñ Abdourahmane jiite ko nekk fi ak sëriñ Cheikh Ibra sëriñ Cheikh Wallo sëriñ Baara moom sëriñ Mamadou sëriñ Cheikh Abdou Bali sëriñ Ahmad Aliou ak ñeneen bu ma leen tuddee tudd naa njabootu Daaru Xudoos yëpp euh, sëriñ Ahmad di leen sant baax a baax a baax ñuy ñaanal itam sëriñ Abbas suñu borom bu dul fanam euh, wéral ay cëram suñu xel dem ci sëriñ Modou Awa Balla suñu xel dem ci sëriñ Abdou Xudoos suñu xel dem ci Baye Cheikh Khadim yi fi jóge ba ci démb euh, kenn ku ne la nga def ci roye ko ca mag ña nga xam ne mooy waa kër Mamour Anta nga xam ne kenn ku ne sa morooma la gën a doon sa bopp muy jokk jolaatoon ba ci ñoom ñu wane njàngaleem Serigne Touba wala njàngaleem man Thierno Ibra Fati loola defe naa ne bàyyi na fi njëriñ bari loo xam ne Sénégal mën na cee dund ay ati at ci wàllu bu ne wàllu spirituel wàllu économie ak wàllu boo seet indi nañ seen apport ci réew mi kon noo ngi sant bu baax itam Serigne Ahmad mi nga xam ne moo doon def euh, conférence bi Serigne bi du yow rek yaa ci fier moom fierté yoonu murid bi dëgg yàlla ndax ñu dégg ñu ngi fi waxee kenn ku ne am boo ko déggee te amul mën a déglu da nga am loo duy ay ati at loo xam ne dana la mën a jël ci sa dund ci sa doxalin ci noo war a euh, xamee Sëriñ Tuubaa noo ko war a mën a jëfe kon noo koy sant bu baax moom itam euh, wax na fi yii moo di euh, xam xam-xam Euh, sëriñ bi dafa tëb tëb rek joxañ jëme foofu ñii dañ daan ñu wax jihaad day def ñii day def ñii accusé nañ ko jihaad accusé nañ mu d'accord nañ day def jihaad waaye nag ni ujahidu bil ulumi wa bil tuqa waaw boole ko ak indi instrument yi nga xam ne fi ngay mën a jaar pour am ay makaarimal axlaaq wane itam ne liggéey ak jaamu yàlla parce que doo nekk rek toog yaafus da ngaa war a liggéey ba xam ne danga mënal sa bopp kenn du la mënal foofu la dignité di tàmbalee foofu la xurriya iqtisaadiya di tàmbalee kon alhamdulilah euh, ñoo ngi ciy bu baax a baax euh, sëriñ maam Cheikh Ibrahima Fati nag suñu maam euh, dafay li ma ko waxee woon ci Daaru indi cachet dóor ko ci page Yoonu Murid cachet waaw indi carte d'identité am manqué ko ci indi yéeneemu suuxate ko ko indi jëfam euh, toppatoo ko yoon mooy jëfal ko yoon mooy kon alhamdulilah kooku nekkoon nag boroom dénkaan yi nga xam ne ko dénkoon da ko ko lool xam ne ne sëriñ bi yàgg na ci loxoy tubaab yi bokk na ci lii tey ñu màggal gii moo di njaay rek def fukki at juróom te loolu euh, ñu baax ñooñu ak cheikh sa kenn ku ne ñu mel ne état ak ay ambassadeur am kenn ku ne la la waroon nga def ko ca fa nga féete moom nag bokk ci jàmbaar yi ci gën a jàmbaar alhamdulilah bil kon loolu euh, ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax euh, xadimu rasul nag ni ko sëriñ Bas waxee léegi njàngaleem mën naa yor àddina ndax ni ko Serigne Ahma waxe léegi day mel ni ñu jox la ay naaf maanaam jox la récolte ne la da ngay farman nga dem bàcc jëri euh, bees def lu ne euh, xol dindi buusi bi ak sax-sax si teg fale bu jiwu naar teg fa jiw woowee nag suuf su naar buñ ko ca defee akum ndox fokk muy ni gàncax bu bu baax suuf su baax sa nag ak ak ndox ma moo di makaarimul axlaaq ak euh, adab ya nga xam ne moo cay ànd te Sëriñ Tuubaa joxe waa joxe condition ya nga xam ne foofa ngay mën a jaar pour mën caa jël kon alhamdulilah en d'autres termes su fekkoonte ne tey progrès bi def ci euh, technologie bi am euh, nga xam ne ordinateur volume de travail bi nga xam ne am na ci addina bi bu ordinateur am woon tey problème lay am ndax li nga bëgg a def ci benn bis ci ay weer nga dafa jël boroom xam-xam yooyu yëpp mu dajale ko étudier ko seet la ci am njariñ la ca gën dëppoo ak sunu réew dëppoo ak xel ak sunuy xalaat ak jikko ya nga xam ne mooy dëppoo ak sunu makaarimul axlaaq mu war koo mën a mu xool ko segg ko yëpp euh, résumé ko jox ñu sonn ca lool nawet bi am ci disposition ñu mën caa jëriñ kon ak loolee ordinateur lu jéewoon ca waxtu woowee muy fekk kon loolu itam ñu ko ñu ko amee lan lu rëy euh, kon euh, alhamdulilah ñu sant dawaay yi fi teew yépp itam euh, sant Serigne Bass ñaar ñi fi woon dañ amoon ñaari ak ñi nga xam ne seexu naa si la ñi nga xam ne ñoo yor organisation bi ak commission culturelle bi ñu ngi leen di sant bu baax euh, Serigne Bass ñu dellu si waat ci seen rôle ak seen xaadim nii euh, ci meññeetu maam Thierno Birahim rek moom li ma dendal ma ne sa cee leeral lu euh, naa faj ci jëm waaye mën naa faj ci ruux moo di boo ñëwee mën na laa piqûre ci euh, affaire docteur nga tane waaye ñu ne xam-xamu boo xam ne ci turaasu xaadimu rasul la ko jële boo xam ne bu la ko joxee mën na laa defal alhamdulilah loolu am solo la kon loolu bokk na ci kimaanu maam Cheikh Abdou Fati Cheikh Serigne Bass Abdou Khoudous boo ko gisee jëmmam ak ni mu représenté dignement Daaru Musti fu sa foo ko gisee rek sa xel sa xel day dem ci maam Cheikh Abdou Fati ak waa Daaru Muxti yëpp sa xel da ciy dem nga gën leen a bëgg parce que ambassadeur lu am solo lu am solo na nuy melal ci jëmmam ak xelam ak xalaatam ak yéeneem ak compétence am dafay référé ci jëmmi ci wàllam moom dafay delluwaat ci jikko yi maanaam Cheikh Ibra Fati kon alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax di leen gërëm euh, sëriñ Sidi Moxtaar suñu sëriñ ñu ngi leen di bu baax di leen ci ñëw bii ngeen ñëw kon lii rek la yoon wi ajowoo euh, dafa àgg foo xam ne kenn ku ne yaa wax ni ko suñu bas ko foofu euh, wax yi bari na yoon wi dafa mel ne doole bàjjen yi ñëpp la te li koy saafara moo di ñu delluwaat ci jàng xam-xam a dugg gën a xam di xam na ko suñu Tuubaa jënde woon gën a bennoo kenn gën a yéeneente jàmm gën a nekk benn ku ñëpp song da war a bennoo loolu lu ci am solo la tey lii Serigne Touba bàyyi xoolal ñu bind woon te fàtte nañ ko woon rek pour ñu fàtte ko dañ war a xam di ko jàng di ko jàngale buñ ko defee rek benn jafe-jafe bi dootu am te euh, euh, luy raam ci ñebe bi jëm ñiy wax ak def ak i. di wax di ŋàññ yooyu euh, bu ñu waxee ñu jéggul loolu yomba yomba la wax dëgg yàlla ak tooñ la te dañoo war kon bu ko defee ñu xam ne ñeneen ñi ñoo ngi suñu tànk ñu góorgóorlu sàmmonte ak charte ya ak na ko Sëriñ Tuubaa bëgge woon bu ñu ko defee rek la bëggoon ci ñun dinañ ko am lu yomba yomba la dama koy waxee wutal nañu oto wutal ñu essence wutal ñu assurance wutal ñu chauffeur mais entretien bi ñun ñoo ko yor entretien bi mooy nekk ci sunna si Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla nekk benn euh, nekk ci fi mu nu joxal mooy fa yonent bi joxal mooy bëgg muy jaamu yàlla ak liggéey ak euh, jéem a euh, liggéey defar suñu réew defar buñ ko defaree rek moom defar nañ ko la mu bëgg te loolu itam culture jàmm la jàmm boo dee xool li wër Sénégal ñu ne ci bitim réew ab jullit woddoo ay bomb di rey moroomi jullitam ci juma danga xam ne sëriñ bi lii mënu proposé te sëriñ Ahma wax ko léegi muy tànn na ci biir tànnee tànneef loolee kat yaakaar naa ne wuute na ak li ñu def léegi di yóbbu ay bomb di reyante te boo koy def yaa ngi ci sa loxo naan allahu akbar nga xam ne dara lislaam nekkul ci loolu kon lii nu si ñu bi bàyyi doy nañu sëkk nañu ci jàpp te fonk ko ndax mooy ndono li fi ñu fi bàyyee kon sëñ Bas ñu ngi leen di sant bu baax wax nga waxoon léegi eh, rek doy na sëkk xam naa gën leen a sant rek ñu jot lu ñu su cantuk si Amadou Makhtar ak njabootu Daaru Kudus yëpp may wax sax njabootu Sëriñ Tuubaa ji yëpp eh, ci Sëriñ Abbas ñu ngi koy sant bu baax di sant ñi nga àndal ci délégation bi yëpp góor a jigéen mag ak ndaw di ñaan Euh, sunu borom kattanal leen wéral leen ba kenn ku ne da nga yéene ci Xaadimu Mustafaa da nga yéene ci wéyal ndonal Xaadimu Rasuul bi ci jëfe ko ak xam nga ko nga man ko ca na mu gënee ci anam yi gën a rafet ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf bokk jullit yi bokk taalibe yi euh, lii mooy conférence bi nga xamante ne bii euh, ñu ngi koy amal ngir waajale ko màggalu Daaru Xuddus di bis bu mag bi nga xamante ne bii ci la sëriñ bi ñibbisi woon Touba. Euh, ñoo ngi ñaan nag lépp loo xamante ne bii waxtaan nañ ko fi yàlla nañ suñu borom defal dégg ak topp yàlla nañu yegg ci bis bi lépp lu fi waaye ñaan yàlla na ko suñu borom nangu. kon lii mooy li nga xamante ne bii moom la Istikhama TV doon leen indil ci conférence bu màggalu Daaru Xuddus ñu ànd ceeg sëriñ Abdou Bakhe Dia ci caméra bi jàppandalu Serigne safaa Ndiaye ki nekkoon ci micro bi seen bokk seen xarit Murit Mbay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu sa tur wenn raw ko sa waajurit kenn gënu ko saw askanit kenn siku ko